wolof nataal la nataal yu xóot a xóot naan naan misaal indil tey xam ngeen ko miin ngeen kanamam ndax chaque midi mu dugg seen saal ngeen di jàkkaarloog moom muy waxtaan ak yéen xew xew jamono wala di leen conseiller moom na gars yi dañ naan mag la wala xale ndax waxu xale waxu mag rek lay wax <laughs> xam ngeen ki ma leen di wax kooku moom mooy Mamy Linguère Mamy Linguère neen dalal tey fii ci Pikini Production Mamy ñu ngi lay nuyu. maa ngi leen di fay bu baax Yacine sama rak ji. Mamy si loo ne. waaw xanaa yaasin kon damay ñëw rek door ni ma daan dooreeti rek ndax xam nga ko wat jubb bi ñu la xamee dañ lay fakk neeti jërëjëfati cheikhul xadim cheikh ahmadou bamba sama yaakaari tey ëllëg sama maam yàlla mag neen son Mandela tëbb koy jaloore maa ngi sant bu baax alhamdulilah maa ngi ci jàmm mm-hmm. yaa ngi si jàmm mami li ñu lay njëkk laaj mooy euh, kan mooy mami Linguère et puis Linguère bi fan la jógee waaw kan mooy mami Linguère xam naa ne lu yomb ba lijjanti lay doon mami daal benn xale la bu nekk ci réew mi juddoo diggante Kajoor ak Bawal euh, dëkk kër amadu Yàlla cil ma xam mbaakol euh, ak euh, kër Yaaba Diop mooy sama cosaanu kër yaay ak sama cosaanu kër papa lingeer bi li ko indi mooy ku nekk xam na ne juróomi lingeeri saa xewar Fatma ya muy Aysata Kodd Samba ak Fatma ak ma xuree jaak ñooñu ñooy samay maam te juróomi lingeer lanu saa xewaray seen baay waaw dama juddoo ci doonuk Linguère ndaxte Saaxewar ma sama juróom benni maam yëpp boo ko toppee ñëpp dañuy dellu ci Saaxewar waaye sama benn papa moo ma tuddee Linguère Diop. léegi li ñu bëgg a xam mooy euh, lan mooy jaar-jaaru mam yi wax nga sànq ni ko yaa ngi jóge Cilmaxa euh, Cilmaxa foofu mooy sa cosaan wala foofu nga dëkkoon ñëw dakaar wala naka la demee. non Cilmaxa sama cosaanu ay waajur lañ dama la lima rek samay waajur ni ñu dëkkee ci réew mi. ci penc yu ñu bàyyeekoo ci diggante boobu la dama papa fii yaayoo fii waaye man daanaka euh, Touba nag mooy sama dëkku cosaan actuellement waaye wax dëgg yàlla bi ma génnee li ma génn Ndakaaru bariwut mm. léegi lan mooy sa jaar-jaar mami lan mooy sa jaar-jaar avant ñuy ñëw ci euh, présentation beeg TFM ak média yi lan mooy sa jaar-jaar waa sama jaar-jaar mooy benn xale laa bu maamam yar aw ma woon temps yi parce que sama maam gëmul woon loolu jot naa jàng tuuti ci daara ji jàng naa école itam euh, bi ma ci génnee tukki naa fi tukki bu gàtt loolu yëpp sama ndaw laa ko def may xale bu teel a sëy itam sëy lool ci sama ndaw doon sëy ak kilifa yàlla jox ma fa njaboot bi yàlla weddee itam terewul ma continuer sama àdduna mooy sama sëriñ ci moom laay jébbalu loolu yëpp bokk na ci samay jaar-jaar

def naa ci façon yépp itam te ba léegi bàyyiwuma ko ba benn moment damay jënd Sénégal yóbbu Abidjan jënd Abidjan indi Sénégal yàlla xamal ma ak benn nit boo xamante ne ku xam samay waxtaan boo toogee di nga dégg ma ne Ndoye Bane moo ma dugal ci métier mi muy def benn émission moom ak Baara Samba Linguère euh, fekk na an après musuñu wax mais mi ngi téye sama baat parce que yow xam nga ci li may wax dara euh, déformation wu métier bi dafay dem ba lu la romb da nga koy capter bi ma wootee ci émission bi ñu am thème bu ñu nekkoon ma dugg ci wax ci lu gàtt rek daal di gaawantu coupé Baara Samba li ngeen ne ko du mën a demee noonu du mën a demee noonu kii da nga koy jëli parce que ji wax maa ngi koy soogay dégg. Walf la woon. Euh, Walf la woon thème de la semaine mu ne ko bàyyil mu jàll xam naa ko. ci lañ ba ca suba ga ñu waxaat maag moom mu ni ma dama lay invité ci laa ñëwee mais ñemewu ma woon wanewu parce que maa ngi doon ragal sama famille maa ngi doon ragal yenn yi donc bi ma ñëwee ñu def émission samedi boobu bi mu passé wee ñuy def yeneen émission mais dama daan def émission sax euh, samedi dimanche ma ñëw toog ci nit ñi ñuy waxtaanee ku jigéen kay wax Walf lu rëy la muy wax ngay naa <laughs> ma ànd ak ñoom di waxandoo dinañ ma balang, nak ndax dama socc xam nga tay mom da ngeen ma fekk rek mais ci li ngeen ma fekk ma andandok ñom ci waxando bi di jëw sama bop lolu yëpp ci ci ci ci tambali bi la won bop wolf la won yaangi doon wax ni que commerçante nga manam commerce ban étape commerce nga def waaw commerce li ma ci ñëkke moy euh, man dama mënuma sañse mais dama bëgg solo donc dama daan jaay lepp luy sañse dama bëgg tamit diw mais man samay diw yëpp yàlla daf ma boole ak maam boo xamante ni dafa may gëstuloo ci luy olof luy cosaan ak aata donc ma demoon ci bay defar quarité ak lépp lu muy àndal karité dama ciy defar diw yaram di ci defar diw bopp di ci defar massage di ci defar bu ñuy diw ci tuñ lépp lu ànd ak karité dama ciy defar lépp lu ñuy soxla ci yooyu laa nekkoon ci yooyu laa tàmbalee. après. ma dem ba benn moment ma chargé sama boutique. tëdd ba guddi ma gént gént gu doy waar am itam yu ma dégg ci prison yi mu xaw ma kii ma xëy jaay sama boutique def inventaire jaay boutique bi bépp daal di dem. mooy loo gént ba daw. <laughs> non non géntu ma dara dama gént benn gént bi ma ko géntee ma dem firiloo ko mag mi sama maam mi may ñaanal mu mag Nelson Mandela mu wan ma ne ma dañ dafa am mission buñ ma sant te mission bi mu ngi jëm ci jàppale ay nit ñu nekk fu lëndëm ci la jaayé boutique bi yépp nak parce que bobu xaaliss bi ma soxla won peut-être yoruma ko ci la jaayé lima yoron ci boutique bi yépp bolé ko ak lenen lima yoron xam nga bobu kèn dula la gum ma la di koy daal dem camp nak ci jigen ñi daal di ko fay def. Mm-hmm. légui li nga yoron yépp nga def ko fa légui après parce que yow li nga liggéeyé nga jaay boutique li li tax lool mami expliquer ñu tojal yéex fi yow tamit. waaw xam nga nit day am gëm gëm te man serigne sama serigne dafa ne boo nekkee ci yoonu dëgg di dem di nga wéet lool ca njëlbeen ga waaye boo demee tuuti ñëpp dab la xëy na boobu man rek maa amoon gëm-gëm bi man rek maa amoon gis-gis bi te damaa gëmoon ne alal ji man maa ko liggéey mais alal ji te ba ma ko fa defee ak tey yaakaar naa rëccu ma ko maa ngi ci juróom-ñeenti at waaye wax dëgg yàlla rëccu ma mais ba nga ko fa defee après lan nga def nag nga def pour liggéeyaat. Euh, bi ma ko fa defee bi ma ko fa defee ci saa si wax fa dëgg yàlla am yàlla dafa maa daal di ubbil euh, ay buntu wërsëg yu yaatu. leneen daal di ñëw daal di may jóge feneen ak feneen ak feneen ma daal di dàbbali ko rek continuer waat ca commerce ma <laughs> ni ñuy nëbb daal mais mais mais étape bu Walf bi après naka la demee bi nga commencé di animé Walfadjri mën nga ñu expliquer. waaw bi ma tàmbaliwee mooy bi may soogaay di ñëw euh, Ndoye Bane dafa ma bëgg ba daf may daf ma doon protéger ci yu baree bari ndax xam naa xëy na xamoon na li nekk ci métier mi tellement que daf ma doon wax naan ma Euh, xaaral. est-ce boo ñëwee samedi ñëw dimanche est-ce que di nga li nga yor dina dina dina yàgg daal parce que xam naa ne boobu dafa jàppoon ne xëy na que dama doon tibbee feneen di indi te man boobu gëmoon naa ne li la maître bi jàngal fi mu yem ngay yem mais li yàlla maye su bëgg xëyee dolli ci kilo. Mhm. boobu lan nga doon def ba mu ne la boo ñëwee samedi ak dimanche ndax doo jeexal boobu naka la demee woon dañ daan ni te de la semaine yow nga def ci lan. comme li ngay gis ba léegi nii rek. cest à baatu baatu olof yi rek mooy que olof amul école bu koy jàngalee Sénégal amul sax école bu koy jàngalee feneen yaakaar naa mais mayuk suñu borom moo yaatu te ku ko xeeb rek dangaa gisul ko yàlla may tellement que xam naa nu mu doon ñëwee ak yooyu dafa doon jàpp que ne su ma waxee tey lii bu subaa du ma du ma du ma amaat leneen lu ma wax et puis xamul woon wax jooju ci man daal bi ñu ma koy présenté ci yeneen i anam la woon donc xamul woon wax jooju ci man après sa parcours foofu Walf naka la dang fa liggéey signer fa signé naka non non non musuma fa signé parce que mon sama métier la man dama fo wax dama fo que rek comme nit di dégg may dégg ne nit tamit lég euh, lég nit la encourager la won la que ni changer nga sama dundu nit la mais ku nekk xam na ne jamono jooju Walf presque wax li fi nekk fi am presque signéetuñu woon kenn te man defuma ko woon pour ñëwoon doon buuxante wala doon wut place wala doon kii dama ko defoon juste doon jàngaale àdduna ak doon partagé wu ak ñoom lu ñu doon def ak affaire yooyu. def nga ko ñaata temps. Hmm, xaw na yàgg te est-ce que defuñu fa bu dul ñaari at ak quelque daal di trois ans yi daal xam naa ne kon tuuti ko war a manqué. loolu yëpp laaloo salaire. non boobu salaire sonalu ma wax dëgg yàlla boobu sono lu ma parce que defuma ko woon pour que loo xamante ne dama ci doon wut dara dama doon jàng am na lu ma doon jàng euh, doon naa jàngale àdduna tamit ci biir parce que thème yi daf lay yee ndax li ngay tem yow sa bopp lay lay njëkk lay njëkk a yee ba pare soogay di yee keneen mais ci biir loolu wax dëgg yàlla boobu nekkuma woon ci besoin wu xaalis. boobu yaa ngi commerce. waaw boobu ngi commerce waaw. Après, après lan qui lan mo arrêté À ak ban moment la sa famille découvrir wa bu sama sama famille de dem nañ bu ci bir non sama famille man sama ay sœur rek laay andal. Euh, Walf li ma fay nek samedi ak dimanche Je man ak sama sœur ak sama frère ñoy dem chaque weekend man foo ma gis sama frère ak sama sœur nga may gis ma andal. bañ suis ko ba fu dëkk sax man ak sœur euh, peut-être ñeneen ci famille bi biñ koy découvrir ñoom xaw na yàgg mais sama yaay sama ay sœur sama ay frère ñoom ñëpp xamoon nañ ne man la et puis sama yenn famille ñi ma ci gën a jege ak ñu ma ci doon fréquenté sama baat moom musul réer moo tax xamoon nañ ne man la mais ñeneen ñi moom après lañ ko découvrir. d'accord kañ la aventure ba arrêté. Euh, toog naa ba benn moment yaakaar naa ma waroon demaat Abidjan ndax man nag Abidjan dama ko bëgg ci sama xol ba su ma koy wax day neex ci man. tok na ba benn moment ma wara delu wat sama dekk ba parce que dama nan ñaari dekk la am muy Sénégal ak fofu tok na ba benn moment ma war fa delu wat ma waré dem mm, ma dem xam nga rek di nga ne di nga ne ma ngi dem pour benn temps mais mën nga dem yàgg fa bi ma def na fa presque ay 3 mois xam nga donc li nga don def yëpp day arrêté ci digënté bi nak bi ñëw ci la fekk ndoy Bane wara dem TFM bima waré dem TFM ma daal di ñëw ñu wax ma mané ah alhamdulilahi rabbil alamina damaa indaale sama àdduna marchandise ndax yàlla sax ma toog nag concentré wu sama njaay mii nag te bàyyi sax waxum rajo beek affaire yooyu boobu waxum rajo rajo bi euh, passion la woon buy jàll rek mais wax nga ko sànq du sa métier waaw boobu defuma ko woon sama métier tout le temps aussi dañ lay dégg ngay wax souvent sama maam sama maam sama maam léegi mën nga ñu wax sama am <laughs> waaw mu ngi fii di la dégg fan fii nga toog nii mu ngi fi toog. <laughs> mu si kër gi non foog ñu nuyu ko. <laughs> non sama maam dëkkuñu ci benn kër mais su ma nee la mi ngi toog nii nii di la dégg mooy que mooy sama kilifa amul lu may def lu may def lu ñu bokkul man ak moom amul dañuy partagé wul lépp euh, bi ngay ñëw nii sax su ma ko waxoon mu ni ma déedéet dama lay fommaat. parce que lépp dañu koy dañu koy séddoo man ak moom nit la ku ma jege nit la ku ma ku ma jàppale nit la ku ku euh, séddoog man sama lépp sama lépp taxaw ma ci sama lépp. maanaam sa maam daf la yar naka la demee seen relation bu suude boobu sët ak maamam. waaw sama maam bu ma yar euh, kooku yàlla na suufu Touba oyof ci kawam muy ko jur sama yaay moom gaañu na. Mm, peut-être benn dama naan sama métier bi tey benn métit boobu rek laa ci am mooy que moom waroon na fekkee tey ba mën ci bànneexu mais ki may wax nii sama nijaayu yaay la mais ku ma jege la tey sax xëy na nee naa sama nijaayu yaay comme ça nit ñi mën a xam ndax góor la walla jigéen la mais moom itam noonu la ma jegewee euh, yaruma yaru ki mais sama ndaw ba léegi daal ñu ngi nekk maag moom fan la nekk. ngi Dakar. mi ngi Dakar si ah, fa léegi sa maam bi fekkewul bi fekkewul sa njëriñ nag euh, loolu daa mel ni dalaa touché parce que yaa ngi koy wax mais ñi ngi sentir ni que sa bëcc mi ngi daal. waaw kooku daf doon kenn ci man man bi ma bi ma xamee ne sama yaay moo ma jur peut-être mooy bi sama maam demee ba commencé feebar affaire yooyu dem naa ba nekk magum jëmm sama yaay ci turam laay jaar parce que dama yaakaaroon ne man ak moom ñoo bokk benn yaay waaw parce que mère bi caatam la ma defoon. Mhm. léegi sa maam bii nag sa nga la <laughs> de non dafa dafa attachement bi nga amoon ak sa maam euh, ak tout le temps boo wax day am foo xam dafa am fu mu parce que peut-être relation bi ngeen amoon mooy sa bi nga xam ne moom moo la mm-hmm. waaw xam àdduna ku ci nekk am na loo xamante ne daf lay marqué à vie dafa am ñaari dese yoo xamante ne mooy li gën a marqué ci sama àdduna muy sama baay bi mu jur ma bëggoon fekkoon ko ci àdduna ba mënoon am ak moom yenn peut-être relation yi mais dafa am lu doy waar link bu doy waar ba suñu diggante mooy fekkuma ko ci àdduna walla bi ma li ma ko fekk yàggul Euh, xàmmeewuma ko mais terewul dafa mel ni dañu dund man ak moom lu yàgg yàgg yàgg beneen bi ci topp mooy sama maam bi ma bàyyeeloon nga xam ne moo jur sama yaay ñu dund man ak moom jaar-jaar yu bari yu metti itam ak yu neex partagé wu lépp soo ma bëggoon daf lay bëgg ba du la gëme soo xawee am ci man tuuti mbañeel walla tuuti xeebeel moom bañ na la li des ci géerub dundam kon kooku dafa sori won ci man. fan ngeen euh man ak sama mam sama mam nak dafa amone ay kër parce que mo ngi jëk a dëkk Jurbel xam nga Jurbel dafa am benn moment ñu fa nekkon ñu ci ëpp joggé fa dem Touba mo amone kër Touba donc demone nañ Touba mais téréwul comme ay domam Dakar lañu nekkon ñu ci ëpp eh, benn moment mu ñëw nekk Dakar bobu mi ngi amone kër ñi eh, ngi dëkkoon cité Sones Guédiawaye. ban banane la gëna adina sama maam 2006 2007. 2006 fan la la fekk yaa ngi koy fàttali. maa ngi koy fàttaliku li ci gën a metti mooy dama dem màggali mu sonn comme li ñuy wax naan euh, fekk nit kaa ngi sukkuraat ki mu gën a bëgg bu nekkee ci kër gi du dem nekk sama ñoom yaay xam nañ ko ni ma toogee di jooy ñu dàq ma ne ma demal ñibbi demal ñibbi demal ñibbi ba forcément ma ma déparé Touba heure yi ñibbisi bi ma dikkee xam naa ak loolu moo jàpp sama yaram mu diis ma ñëw rek tëdd nelaw oto bi ma yore woon am suñu beneen gan boo xam ne moom it dafa màggal si woon jóge fii war a dem Thiès ma ne ko kon na la oto bi yóbbu Thiès oto bi dem yóbbu ko ma tëdd nelaw ndeke sama maam gaañoo na ci guddi gi te dama doon kafe naan bu sama maam gaañoo ku ma ko njëkk a wax dinaa wekki say bëñ donc nag kër gi ñuy paasante kan moo ko koy wax kan moo ko koy wax moo ko koy wax sama mag góor ne leen kii doful jàpp ko du dee ànd ak sama maam te du xaru ndax jullit la daful te dina téye boppam xam naa ne donc bi ñuy seet kan moom ma koy wax ba heure bi ñu ma koy wax mu xaw a naaj may woo oto bi li nga gën a bëgg à chaque fois yàlla daf la ciy nattu bi may woote donc mu yàgg ci yoon bi ñëwul euh, avant may egg Touba ñu denc sam maam. maanaam sa ginnaaw wolof nataal la nataal yu xóot a xóot nanan misale am la waaye xëy na loolu rek moma ma xawon ki parce que ñom aussi dañ jappone ne te waxon nañ deug parce que suma fa fekkoon ñew bi xëy na doonoon naa saalit ba egg fu ma waruloon egg xeyna lool lañ ma doon dawal tok na ben moment bu yàgg mënuma melam ta mais alhamdulilahi rabbil alamin parce que man dama ko ñëw ndax xamna ni jigen ju sel la jigen ju bax la jigen ju du am borom kër la jigen ju taxawu njabotam la tamit parce que mi ngi doon sey ak euh, góor gu tuddoon Cheikh yaba job nekkoon buuru Kayal bokku ci dernière presque chef de canton yi ndax moo demaloon Serigne Modou Moustapha armée di papa wu le job ancien ministre sëy na ak mom xawma ñaata at euh, sama mam presque mi ngi fi jógee 80 xawma ma 81 ba sama mam bu jigen nim ko fekkee amatul borom kër ndax sam ko lëre musul fay itam musul fanaan all lu ne ci ndigalu borom këram rek la daan dox ba bi mu feebaree ñu hospitaliser ko itam euh, tombeek magal fo tollu yaangi deg batam bi muy tari alcorane ak xasaay di sëriñ Bàmba kon koku amna ci mom rafet ndior si mom nga jele, waxu magi waxu magi ñi wax su génneñ naan kii xamuñu mag la wala xale wa amna luma lu jele ci mom parce que mom moma jangal lan moy mbokk moma jangal itam famille bi ma bokk jàngal na ma lu bare bare bare bare jangal na ma ko parce que musuma ko won sori mosuma ko woon sori tout le temps dama daan toog ci wetam mais ginnaaw bi mu demee nag kii may ñaanal mu mag Nelson Mandela moo mottali sama yar. moo ko euh, léegi bu ñu ñëwee ci li nga xam ni moom mooy TFM parce que ñu bëri faneen ràññee sa kanam peut-être xamoon nañ sa voix mm-hmm. mais sa kanam faneen ko ràññee naka nga intégré foofu. waaw avant TFM yaakaar naa benn yoon laa mos a génn tele muy coow lu coow li ak Mbayang Thiam. te loolu itam yaakaar naa liñ ma biñ ma ciy invité avant ma cay dem xam naa ne mel na ne interview waa Pikine bi <laughs> yàgg na lool lool lool ci laa dem benn coow li coow li ñëpp ne waa kii lu muy def kii lu muy nëbbatu yow lu la tere génn yow da nga war a wax yow da war a dem ci tele yi xam nga tellement que rek Sénégal dañuy jàpp picc di ko ñay ba muy mbëkkanteek ñay ma daan ne ah acca boog waa télé yi am ngeen problème <laughs> mais ba tey taxul woon ma gëmoon ko comme nag dama amoon ñaari nit ñoo xamante ni kenn ki yàlla ko yàlla yërëm te yeexee ñu fu ma toll dama koy ñaanal mu dëkk ak soppeem ba seydinaa Muhammad sallallahu alayhi wa sallam keneen ki yàlla na yàlla guddal fanam te wéral ay cëram mu yaay diggéen ak yaay gañ siri dama leen mosoon fan ci li ñuy def ma daan toog bi ma nekkee xale ma naan ay ñii xanaa bu ñu wàccee du ñu añ ay ñii xanaa li ñuy yanu ci problème Euh, donc benn moment euh, ma xamante ak mbarka bi nekkoon Sen TV mu daan ma invité ñuy waxtaan léeg-léeg bu ñuy waxtaan mu ne ma thème bi lii thème bi laa mën ko bàyyil may ñëw di la di la jàppale parce que man dama bëgg nit buy buy jàppale nit mu jóg man loolu dama ko bëgg ma daan dem ba mu dem fii congé après maman gañ siri nag moom comme moom itam yaay la moom it def nañ quelque temps mais ba tey taxul woon sax ma def ko sama liggéey dama ci daan fon nii rek di jàllantu Mati moom it bi may nekk ak Ndoye Bane dafa daan def jooyu xool à chaque fois mu naan ma del dugg ci sama émission dafay neex euh, auditeurs yi bu ko defee suy ubbi damay dugg ma def ko ñaari yoon ma gis ku duggaat ci thème bi boo nuyoo rek boo waxee pare danga naan nanu xaar mami ba mu ñëw wala buñ koy tëj bu mami ñëwee rek na wax ci lii ak lii ak ba avant may dem Abidjan mu topp moom mami di ma invité di ma invité bi mu demee RFM di ma invité lu war a mat at sama sœur bi caat daan ne ma bi ma waaw bi ma ba ñëw indi sama marchandise muy def lay di tigre ma ne ko yow jaar fi ma solal la dama am ay wax yu rafet euh, maa ngi ko ñawloo Abidjan damay ñaw foofu indaale su ma ñëwee ku bëgg rek ma kii wala eh, jëlal la mesure te jël la ko sama ma ne ko jaar fi ma solal la mu ne ma ayo ah, kay da nga war ñëw sama émission bi jooy xol sama sœur bi daan ne ma bët bu rusul di toj xam naa kii topp la boobu ba léegi di la invité nga rek a dem ma ne ko ah ok kon dinaa ñëw kañ la mu ne ma vendredi ma ko vendredi kon dem nga wax ma heure bi mi dem mu ñëw jaar sama buntu kër pour ñu dem bi ñu ñëwee ñu tàmbali émission bi tuuti rek comme mi ci cabine bi maa ngi ci biir saal bi mu jékki-jékki def ma nii kay wuyu ma génn ñëw mu ne ma la ma ne ko yow doxal faw woote <laughs> yéen moroom ngeen di wër yow man ngay def loo nii mu ne ma noonu wuyul nga xool ma wuyu muy maaraaja mu ni ma Youssou Ndour moo la doon laajte yow mag nga walla xale ma ne ko su ma gisee xam ko <laughs> <coughs> pardon mané ko suma gisé xam ko ci non la sama intégré TFM ñëwee. hmm ya nga de. <laughs> ñi ñi sétat moom mi ngi tëb <laughs> après. non te mu ma xam nañ né soñ mi la. <laughs> lég bala ma rawé après mu na la jaagal di wala. wa wa après yusu dama na ñëw wuy si mm, samedi bi ma waron dem ci Serigne Bassirou Abdoul Khadr. tey ñaanal moom mi yag fi to wer mané ne ko samedi bi damay dem Touba mais su ma oke ok ñu waron gisante lundi bi après mom lundi bi mu japp ñu gisante ci mardi ba bi ñu bi mu génné buntu birom tamit yem ci man ma taxaw Mara ne ko xalé baangi ni mom dafa jaxlé parce que dafa jàppoon ne ah yii boobu nag damaa tuuti woon <laughs> donc mom dafa jaxlé bané bané ñi am ku ñu togon fa mu leen no une fois ngeen may mo wax parce que ki dafa ma jaxal ci lañ dem tok waxtaan mais ndekete yoo te dugub ak ñebbe ña nga àndee ca tool ya kër gi boolewu leen ndax dafa am ku ñu daan wax Abdou Mbàkke nekkoon nijaay la ci man mag la ci man bari na cër lool ci man di doomu Serigne Cheikh Mbàkke Gaynde faat ma nekkoon ba tey kër Sàmba la Jóob sama nijaay bi ma la wax nii te moom ak Yuusu altine ak talaata la woon bis doxul woon ci diggante bi donc moom mu xamee loolu mu rëy lool lool ci moom te mus na woy sama yaay benn woy bi muy wax Issa Jóob bi Issa Jóob après nga fàttali ko loolu yëpp mais mais mais après boobu bi mu la jëlee dugal la TFM boobu yow comme parce que nee nga affaire bi defee ko woon métier mm-hmm. ban sentiment nga amoon après bi nga ñëw wax seen waa kër yi ah waa léegi nag kuy dem màkk génn sa buntu kër yem ci kaaba geeg yonent bi kay mu naan la yàlla ak xaar ci biir. nga génnee bi may dem dama am sama première fans boo xamante ne mu ngi tudd Mbacum Mbodj mm-hmm. mu ngi dëkk Rosso Ibadou la bi Youssou génnee di ñu nuyu daf ko ne nii dem ba koy nuyu ne ko eh yow ibaadu nga daan ne nii kol gi daan ne ko waaye maa ngi lay ziar waaye fekk ma ne ko kii nag mooy sama première fan sa mbaaco bi mu ñibbee nee na du fóot kol gi <laughs> après si la si la leen présenté concept wareef wala naka la demee non man daf ma ne rek dafa am ci lu ma la soxla hmm, parce que waxante nañ ay wax yu bari mais xam nga kilifa day am wax yoo xamante ne da nga koy denc pour yow parce que Sénégal dañu mëna a dingat yenn yi wala sax ñu indi ci lu ca bokul donc yenn yi da ngay da ngay wax rek li ki bi contenu bi rek bayyi la ci biir parce que mom xamna man xamna ci loolu lañu teunk suñuy wax wax deug yalla mit mu dis lam ma waxon ci la nek ne ma dama la soxla mais demal tok dina la wax ci lima la soxla lan la néew ma wareef néew ma lii ba ci loolu lañu ñu man dama dem sama kër tok nekkat ci sama boutique di jaay faté won na sax wax deug yalla la wax ndax man nag sama boutique boobu nag dama koo gëmoon dem nekk ci sama boutique boobu dama xëy rek nekk ci biir di defar ak ranger waat samay bagage ci la ma tonton Mara woowee ne ma Youssou ne na nga dem wuyu ci njaga télé ma bi ma ñëwee itam ku ñuy wax Mia moo ma jël yóbbu ma ci njaga njaga yóbbu ma ci mama Degen ma dugg si ñëw fekk Ndoye baan toog taa Degen toog ne maa ngi Ndoye Bane ku nañu woon dina retrouver waat foofu sax xam naa ne moom du ko gëm man du ma ko gëm mais booba yàlla nee na ànd bi sincère na sincère boo xamante ne du jeexee fii bi ma dugg see mama déggeen xool ma bi ñu training ba pare mu ne njaga noo mën a xamee ne damaa bëgg xeetu xale yi ba nga indil ma leen <laughs> lii mooy sama dugg wareef muy vendredi ñu ne ñu samedi dimanche di matin ngeen di tàmbale lan lan lan moo la euh, njëkk a marqué ci bi nga tàmbalee foofu noonu. bi ma tàmbalee li ma fa njëkk a mooy. télé boo xam ne famille lañu mais ñu fekk fa yaay ju mat yaay yaay ju tax Sénégal gëm ñu man ak Ndoye Bane tey lu ñu am dañ naan ginnaaw yàlla Déguène Chimère parce que daf ñu gëmoon daf ñu joxoon suñu suñu wàccuwaay daf ñu joxoon cër boo xamante ne dañu daan wax lu ñu gën a xam fopp mu ne ah Sénégal déglu leen sama doom yi ñii dañoo xam lépp te fekk li ñuy wax moo ñu ko gën a xam ndax ku la njëkk taal may la doom lam ca xam xamuñu ko ca mais mu ñuy gëmloo sénégalais yi di jox importance li ñuy wax tellement que nit yi dañ doon bàyyi xel ci ñun ak di ñu di ñu di yëkkati ku mu xam wan ñu ko tout le temps sama doom yi lii sama doom yi laa moo waral bi ñu fa defee un an def fa thème bi nga xamante ne mën naa ne moo waat wareef ba mu tolluwaat fi mu toll nga xam ne booba nag damaa yaakaar dañ doon xaru dañ doon jaay suñuy bakkan muy maraboutage coow li ku ne dégg na ko <laughs>

ah waaye xam nga nag liw bi liw bi ngelaw li la xam nga man ëkku kel laa tiituma ngelaw man menace yëngaluma taalibi Cheikhul Xaddim laa sëriñ Abdou Lahad laa gëm moo ne bu ma naan patt ñu ne damaa mer bu ma waxee ñu ne damay xuloo man fekk sama conscience a ngi tranquille mën na maa dem lu ma mosoo ci subir waaw mos naa ko ba pare am ku ma woone ma sama sëriñ ngay waxal ma ne ko yaag sa sëriñ bu ngeen ci gisee seen bopp ngeen jël pour yéen la Eh, ci marabotage tam yaakar na ni jot ci ay menace yu bari ba ki ñi wax ma borom paaka bi xawma ma man après sax lañ dem moy borom paaka bi xawma num paaka mu musna mus ma fi top mais xam nga yoy yep yëngaluma amul ben moment bo xamni nga xawa tiit bëgg a li ngay def wala sa famille bëgg def pression pour nga bàyyi. wa pa man mais sama famille amna ben moment ñuy def pression parce que xam nga rek Touba ak yoyu peut-être duñuy duñuy comprendre yenn ni bir famille itam ndugum marché la day am xeetu légume bu ne donc li ngay tem ba ci sa biir famille sax peut-être da am amon nañu ko ci daan ñëw di ko wax sa doom ji li wax waru ko wax limi muy wax a ko mag li wax a ko buñ ko ci buñ ko ci tellement que da ngay arrêté tem bi wala nga bàyyi télé bi ci boppam parce que gisuma lu ko fi jar sànq sa mana la ko yaay man yaa mana jur man xaw ma sóob di dëpp gor laa samay morom

Mm-hmm. xam nga nag tellement que doo ko bàkkoo ndax da ngay xam ne ku mën nekk fi ku yàlla dimbalee fi nekk waaye wax dëgg yàlla am dañoo lijjanti yu baree baree bari yoo xamante ni yii guddi lay doon yii bëccëg lay doon amoon nay temps doo tëdd parce que da ngay génn sax ànd ak nit ñi di dem di ko lijjanti ji waaye jàpp naa ne di lijjanti waaw jàpp naa ne li ma lijjanti ci ay cas daal bi ma ci gën a marqué su ma juumulee euh, côté camp pénal lay doon waaw jigéen joo xamante ne daal jëkkëram tasaare na cinq doomam tëdd penam ba génn ñu abandonné ko yooyu yaakaar naa yooyu daal dina am nag yeneen yu la marqué mais xam nga nii nit nii day bari ci sa bopp tellement que doo mën a delloo seen doo yëpp. tout le temps aussi xam nañ la da ngay dem euh, camp pénal di yóbbu ay don wax nga ni que bo loolu bi nga ko tàmbalee yàgg na léegi fan la affaire bi toll parce que mami boobu euh, nit ñi xamuñu ko woon mami bii nit ñi xam nañ ko léegi don yooyu noonu loolu boobu ko. yaakaar naa ne yàlla na yàgg yàlla na yeex mais ba ba may desee benn nooy yi duma ko bàyyi soo gisee ñun weeru koor rek la ñuy am congé mais mosuma génn Sénégal ci sama congé yàlla xam na ne campé naa la tax euh, ndax jombati naa sax génn dem bés ba jot duñ ma gis loolu dama ko jomb ndax dañ koy xaar dafa am benn directrice bu fa mus a jaar ne ma mami soo xamoon sa journée bi li muy réglé man ne ko ah, mu ne ma bi ngay commencé di leen laaj ban couleur yére lañ bëgg parce que mën na détenu yi nekk 500 bis buñ ko doonoon ñaanuma ko yàlla mais du tee ñoom ñëpp laay xottil yëre te dama laaj itam ndax am ngeen choix ban couleur ngeen bëgg wala ban lii donc ci moment boobu bu ñu koy waajal ñoom ba bañuy xotti ba bañ yeneen détenu góor yi di ñëw di leen jëlal mesure ba bañ leen di ñawal ba bañuy pare ba ba ñuy gis ñu indi bâche bi di monter ak loolu yëpp ñoom événement lañ koy def dañ koy waxtaanee ci biir cellule yi dañ koy waxtaanee suñu génnee ci cours yi dañ koy waxtaanee fa ñuy cuubee fa ñuy arawee tellement dagu bi waaw tellement que moom nee na ñoom dañuy nekk weer bi yëpp presque dañuy nekk ci mouvance boobu duñu tal sax yenn déko événement ci ndo ci waaw waaw donte nag maa ngi ciy sant yàlla ndax ñeneen ak ñeneen ak ñeneen a ngay ñëw di ko fa def ba léegi mi ngi gën di bari mm-hmm. am naa daan comme man daal damaa tànn ndaw si comme ndaw si dafa tëb ma tànn ko ñëw juddoo ci moom bàyyil ma mbugal ko mbugal mu ko sénégalais <laughs> lan ngay tàggatoo. waaw li ñuy tàggatoo wee de xanaa mooy euh, ni ma ubbee woon rek santaat seexul Khadim ginnaaw ba nu santee yàlla mi nu sàkk te dooleel ñu te may ñu lépp ñuy tàmbalee ci moom di tëjee ci moom di julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa di sant Cheikhul Khadim suñu yaakaari tey ëllëg waaye di sant sama ñaari waajur ndax euh, bu la bàyyi wutale yaay ju baax. yaay wutal la baay bu bu baax a ah, ju jur la mënoon la pattal mënoon la laagal te defuñu ko yar la fañ la war a yaree ba nga màgg mën a taxaw te utaluñ la benn xas nga mën ne dama ne ñu ne waaw war nga leen a sant ci lépp looy def eh, di sant itam mbooleem sama famille su ma nee sama famille waxuma famille bi ma bokkal waaye famille bi ma yàlla booleel ci Sénégal muy que ñi nga xamante ni ñoo ma bëgg di ma ñaanal te juruñu ma ñi ma bëgg di ma supporter te xamuñu ma ñi nga xamante ne dañuy bàyyi seen lépp di xuloo di xeex ngir sama jëmm ju ñàkk solo ji ñi nga xam ne buñ la romboon sax nga ne mami ñu taxaw laajte ba xam lan la te ku nekk xam na ne nit kuy wax faw mu juum dinañ juum dinañ def ay erreur comme nit ñi parce que duñu duñu dañu duñu malaayika duñu ay xut ba ay nit lañu danay am ay moment yu neex am ay moment yu naqari te yaa ngi ñëw di ma defal interview yaa ngi ma fekk maa ngi soj ba dama forcé garab yi donc loolu rek mooy mooy mooy àdduna kon nit ñi nañ koy comprendre noonu bu nu juumee ñu dinu ko baal bu ñu nekkee ci yoon bu baax bi ñu encouragé ñu sénégalais nay fonk ki ko ki koy jox mbégte nay fonk ki nga xamante ne mi ngi yàq ay nelawam ngir moom xëy na succès bi yow yaa koy moom bànneex bi yow yaa koy moom siiw bi yow yaa koy moom waaye li ngay def nit ñi ciy jariñu nañuy taxaw di la delloo njukkal dafa am solo ndaxte bu doon ne benn nit la itam xëy na ñu ngi koy changer ci société bi kon ñoom loolu dañu ciy war di delloo njukkal itam te bañ rek di ñu forcer rek di ñu puus ci yenn wax yi ba nga xamante ne kenn dootul ñemeeti wax wala kenn dootul ñemeeti sa doom dugg ci ndax boo yàqee li nga am la nga amagul xamoo bu dikkee nan lay mel nañu waat ñi ñu am. léegi ñu ñu ñu tëjee sañ-say sañ yi ni muy demee tout le temps mami bu ñëwee bu sol du ko solaat. <laughs> dañ ñëw ci sañse xam nga xam nga yaasin nag lu gën a metti xam nga sénégalais boo ko nee dangaa mën a fee danaan la xaaral ma takk birig wuti géej nga ne ko dangaa rafet mun la sangooguma <laughs> man daal sama ay morso tayukaayu cere yaay yi muy tayee ci màggal gi màggal tuubaa gi yooyu laay sol waaye li ngay def waa xam nga ba tey sañse yi booy xool mm, ñun mënuñu fay tailleur yi ndax damay faral di wax ne ne du ñu di warum réew ñu di la tàccu fasu naaru góor rek la ko yàlla may ku ko di génnal seen kër te solo yére léegi tey dalal xel am ci yow yoon ndax boo defut say mbokk nañ la yóbbu tellement que ñoom ñoo lay sargal di ñaw di la jox ndax ku nekk xam na ne bés bu nekk ko yére poche mënu koo jënd da am say soppe yoo xamante ne tamit ñii dañuy nekk ci biir réew mi ñi nekk ci bitim réew lu ñu baax la yow lañ koy jox pardon waaye nag yàlla boole maak ay jigéen ñu baax dama ciy tudd rek Jigen du melne Kubra Aan ak ku melne sama yaay ja ndjay jaata nga xamne ne bis mo tuddé turam ci lepp luy genn rek dina ma bayyi waye muy jigen du ma jàppale jigen du ma taxaw dana ñew ba mu rafet mu yonne ma lu gëna share cher li ngay seen lepp mo koy ñew rek jox jeexna mhm. benen bi may bi may bi may tagato itam moy di sante ñima bokal émission muy Eva Tra ak Ndoy Ban Eva sama mak la Ndoy Ban sama góor la kon dal ñu ngi ci jamm ma ngi leen di sante bu baax ñoom